le témoin yëgle kaay feelu ko ne drogue boobee nga xam ne rek teg nañu ko loxo ci diggante ñaari fan yi nag toll na ci 103 kilogrammes yoo xam ne rek ci diggante kër ayib ak Kaolack la ñu ko tegee loxo le quotidien yëgle kaay feelu ko ne drogue bi kay jamono ji nag mi ngi wulee ñaay ci biir Sénégal ndax ci diggante dibéer rek altine nag douane bu Sénégal def nay opération ba teg loxo lim bu takku ci wàllu drogue ci diggante kër ayib ak gànjaay Walf Quotidien ne fi mu toll nii kay Sénégal mi ngi ci ligne rouge bi nag jëm ci wàllu poudre blanche boobee nga xam ne rek moom la ñuy jëfandikoo commissaire Keita nekkoon fi ancien directeur ca OCRTIS di xam ne ni loolee dafay wane ni nag war nañoo alimenter marché intérieur bi ba noppi dolli ci ne nag li waral narcotrafiquant yi daal di jublu ci réewu Sénégal lii dafay wane ni nag Sénégal dafa nekk ci zone d'instabilité Mame Makhtar Gueye bu ONG Jamra feelu ko ne li nu mel daal dara waralu ko lu dul yaacaaral goo xam ne rek kilifa yi wane nañ ko ci luwaa bi nga xam ne rek taxawal nañ ko fii ci réew Sénégal lay fa yëglekaay na drogue bi moom jamono ji nag bëri na lool fii ci réewu Sénégal lu ñu koy teg loxo douane mi ngi ciy amal am solo nag def katu ñaawtee fi ñoom ñu ngi koy dugal ci biir réew mi vox lii xëyee ni ki tey ji nag lu jëm ci opposant yu njëkk yi nga xam ne rek ñoom la ngurug jomaay fay njëkk emprisonné bokk na ci baa jaxate ak imaam ndaw mi nga xam ne rek ñetti weeru kasoo lañ leen tëj ràpp ñu fas yéene fay ab amende bu toll ci cent mille francs ñoom nag lañ leen di toppee di fësal ay xibaar yoo xam ne rek dara waru ci le quotidien yëglekaay ne diffamation kay lañ leen toppee nag waaye tegg nañu nag lu jëm ci wàllum outrage bi ñu ne dañ koo amal jëmale ko ci kaw élimaanu jëwriñ bu Sénégal fi mu toll nii moom baa ak imaam ndaw nag ñetti weer daañu ko tëdd ci kaso bi seen avocat di maître Amadou Sall ne tëj bii ñu tëj ay kiliyaanam nag jaaxal na ko te doy na waar ndax gis na ne daal lañ leen di toppee dara amu ca waaye moom ma ngay xam ne ni nag daañu amal appel Moustapha Diakhaté moom di ñaawlu lu jëm ci commande politique judiciaire bi nga xam ne rek moom la ñuy doxal jamono ji ci biir réew Sénégal Omar Sow bokk ca APR ne Pastef daal nañu daan doxalee rek bi rek la ñu nekk di gouverner jamono ji réew Sénégal lu jëm ci wàllu yoon kay tëbaski bi fekk ñetti weeru kaso la ñu fas yéene tëdd kii di Bah Diakhaté ak imam Ndao Doro Gaye ñu daal di koy mandat de dépôt ni ki démb le Témoin yëglekaay addu jëmale ci ajug màkkaatum 2024 na ujaaji jamono ji nag ginnaaw bi leen Air Sénégal xooqatale ca aéroport Blaise Diagne bu jam ñaajo nag li ëpp ci ñoom jamono ji nag yegg nañu ca màkk source a feelu ko ne ko Air Sénégal nag ñàkk na marché bi nga xam ne rek moo jëm ci yóbbu ujaaj yi jamono ji nag Flynas moom la leen kilifay Sénégal booleel directeur général bu Sénégal yóbbu nañu ko toll nii nag FlyNAS moo jël marché bi yéenekaay bi ne ginnaaw ba ñuy amal conseil interministériel doon waxtaanee lu jëm ci wàllu ajug màkkaatum 2024 moom directeur général bu Air Sénégal da doon fëgg dënam ci kanamu élimaanu jëwriñ bu Sénégal di xam ne ni nag lépp dana jaar yoon waaye jamono ji moom ba Badara Fall nag yéenekaay bi ne boo moytuwulee ay waxtu rek moo ko desee ci bopp compagnie nationale boobee Sud Quotidien xëyee niki tey jii lu jëm ci wàllu daggum garab yi nga xam ne rek moom la kilifay Sénégal bëgg a fii ci réew Sénégal ne ba na gëni si ma ngay traîner ci ab ndaje moo xam ne rek moom lañ doon amal ak jëwriñu Sénégal ca la Ousmane Sonko xamle woon ne nag jamono ji daal taxaw nañu temm ñoom kilifa yu Sénégal ngir dakkal ko rawatina ca bët saalum bu Sénégal waaye ba na gëni si nag mbir yaa ngay tagatémbee donte ne nguur yi fi jot a jaar nag ñoom ñëpp kenn ku ca nekk def nga ca la nga mën waaye nag terewul yëf yi di doon loo xam ne rek mi ngi wéy di yàq wàllum environnement bi loolaa tax nag ba jamono ji yëglekaay bi nag di samp ab laaj ndax initiative boobee kilifa yu Sénégal bëgg taxawal nag dina mën am ñeel boobee phénomène yër leen boobee yëglekaay addu jëmale ci lu jëm ci wàllu conseil supérieur de la magistrature yéenekaay bi di l'info ne UMS jamono ji nag ma ngay maintenir njiitu réew mi union des magistrats du Sénégal ca ba ñuy amal dialogue national ngir lu jëm ci wàllu yeesal yi nga xam ne rek moom la ñu bëgg a indi ci wàllu yoon dañoo xamle woon ne nag bu ñu sañoon ñu bàyyi chef de l'État nag muy woy di des ci bopp conseil supérieur de la magistrature yéenekaay bi ne googee càkkutéef nag dafay des rek ci njiitu réew ngir mu daal di koy nangu magistrat yu la ñu xamle bokk na ci nag lu waral ñu bëgg njiitu réew mi des ci bopp kuréel googee nag mooy bu amee dina mën a tax nag ñuy mën di amal ay waxtaan ak weccoo xalaat ci diggante pouvoir bi exécutif bi ak judiciaire bi magistrat yi Sénégal nag ne ñoom daal njiitu réew mi des ci bopp kuréel googe ak mu ñàkk cee des ñoom li ñu bëgg jamono ji nag mooy gën a moom seen bopp ngir mën a doxal seen liggéey ci ni mu waree tàggat yaram la ñuy àddu jëmale ak équipe nationale bu Sénégal lu jëm ci trois ak quatrième journée bi nga xam ne rek moo soxal éliminatoire bu coupe du monde atum deux mille vingt six gaynde yu war nañ caa jàkkaarloo ak RD Congo juróom benn fan ci weeru juin ca stade Abdoulaye Wade ak juróom-ñeenti fan ci weeru juin foofee ca Mauritanie waaye mu mel na ñaari jongante yooyee nag Sadio Mané du ca bokk yéenekaay bii di réew mi sport ne moom Sadio Mané dafa daal di forfait ni ki démb ginnaaw ab gaañu-gaañu bu ñu ne am na ko ci genou bi yéenekaay bi ne senegal dina dem ci ñaari jongante yooyee te staram bii du ci bokk mbokk yi léegi noonu fa yéglekaay yi jàmm ak jàmm Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak md énergie